ñi ah, foofu ca ah, kaso ba moom Ousmane Sonko aussi da leen carrément loolu ah, d'accord ci bu fekkee mën nañ ko libérer rek lenn ni daal def mu gën a yomb ci ñoom mooy nu daal di abandonné lépp loo xam ni chargé la woon muy poursuite nu teg ko ci ndoddam loolu rek moo gën a yomb nu daal di nekk fii di voter loi boo xam tey jii amaan na ñoom ñoo ci gën a bénéficier wu 77 227 12 227 12 12 ngeen def daal di dugg ci ligne bi joxe li nga xam ne nag moom moo di seen xalaat ci conférence de presse bi amoon démb diggante Ousmane Sonko ak ki nga xam ne moom mooy Bassirou Diomaye fay di waxtaanee lii di situation réew mi seen bëgg-bëgg ci élection présidentielle 2024 yi nu daal di dëgmal waaye aussi ngeen joxe li nga xam ne mooy révélation Ousmane Sonko def jëmale ko ci candidat bi di Amadou Ba ginnaaw bu nekk woon fële ca impo et domaine waaye aussi daanaka kàddu yooyu. Euh, rek la ki nga xam ni euh, moom moo di euh, Bassirou Diomaye Diakhar fay daal di yëkkati jëmale ko ci ki nga xam ni moom mooy candidat wu APR bi mu nekk mbir moo xam ni daanaka boo moytuwul rek dina gën a gàkkal deru ki nga xam ne nag moom moo di Amadou Ba di nu xamal ni rek moom Amadou Ba dafa jege lool lii di France tey jii buñ ko daal di jébbale réew mi dafay mel ni rek ñoom. dama fay mel ni rek dañuy jëlaat réew mi jébbalaat ko encore li nga xam ne nag moom moo di euh, loxo tubaab yi waaye aussi euh, moom euh, Ousmane Sonko mi ngi nuy xamal ne rek Amadou Ba bu jëlee réew mi li nga xam ne nag moo di xeexum ger moom boo moytuwul rek du gaaw a jóge fii ci réew Sénégal ci mbir moom aussi gis ngeen. réponse bi nga xam ni euh, waa APR rawatina li nga xam ne nag moo di directeur campagne bu Amadou Ba jotoon ko daal di yëkkati euh, di xamal ni rek euh, diffamation et calomnie insupude ñoom nag jàpp nañ ni kàddu yi Ousmane Sonko yëkkati. Euh, teg teg ko ci ndoddu euh, ki nga xam ni moo di Amadou Ba nekkul ay kàddu yoo xam ne kàddu yu dëggu la euh, ñoom dem nañ ba seen biir wax sax dinu xamal ni Ousmane Sonko ak li nga xam ne nag moo di diffamation maanaam wax lu amul ak manipulation loolu nekk na histoire boo xam ne histoire bu yàgg la en tout cas ñoom ñaaw nañ bu baax a baax kàddu yi Ousmane Sonko yëkkati ñu jàpp ni rek dañuy daal di gàkkal. Euh, deru ki nga xam ne nag moo di seen candidat di woo surtout Amadou Ba en tout cas kii di Ousmane Sonko moom jusqu'à présent euh, position am mi ngi ko taxawal euh, diñu xamal ni rek lépp bu daal di jaaree yoon élection yi dinañ ko daal di gagné 60 pour cent. da ko daal di gagné à 60 pour cent mu nekk euh, mbir moo xam ni euh, kenn ku ci nekk daanaka amul benn yoon lu ñu koy daal di naataabale nu jàpp ni rek élection yi moom à 60 pour cent bu fekkee amul benn euh, rëq-rëq bu si am wala amul benn njuuj njaaj bu si am rek moom Ousmane Sonko ba moytuwul dina ko daal di gagné à 60 pour cent alors ci mbir moom aussi daal di laaj rek moom président Macky Sall lan rek la fas yéene def maanaam lan lay nasa ki noo ci ndax gis na nañu mu daal di libéré. kii di euh, Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye fay candidat bi si moment boo xam ni euh, jàpp na ni euh, moment bu xaw a bu xaw a difficile la ndax ñi ngi si terrain bi di battre lii di euh, campagne leader am pour mu dajale li nga xam ne nag moo di ay sympathisants ak ay militants am vraiment doon na loo xam ni lu lu lu difficile la alors ci moment bi bu ko daal di buñ ko li bu libéré usman Sonko lan la Ousmane Sonko lan la président Macky Sall di waajal si 10 jours yi nga xam ni moom moo des ci présidentielle yi ñu daal di la. moom président Macky Sall lan lay daal di waajal ba bëgg nu imposer encore li nga xam ne nag moom moo di loi amnistie bi bëgg si euh, jaare libéré kii di Ousmane Sonko ak kii di euh, Bassirou Diomaye Faye mu nekk mbir moo xam tey ji boo xoolee ba ci biir mën na porter préjudice euh, candidat bi nga xam ne moom moo di Amadou Ba rawatina élection présidentielle 2024 yi nu daal di dëgmal 77 227 12 12 ngeen def 77 227 12 12 rek ngeen def daal di dugg ci ligne bi joxe seen gis-gis ci sortie bu Ousmane Sonko amal na nag démb ànd seeg Bassirou Diomaye fay di nu xamal ni rek euh, kii di Amadou Ba nekkul nit koo xam ni nit bu jub la à tout moment dafay euh, nekk di euh, dugg ci mbir moo xam ni daanaka du amal njëriñ benn yoon Sénégal waaye aussi lépp loo xam ne tey jii dafa ñela lii di kopparu Sénégal moom Amadou Ba da ko jël rek daal di koy akimo mu nekk ay kàddu yu président Ousmane Sonko di yëkkati kii di Amadou Ba ma ngi koy tontu si wet ga di xamal ni rek uh, wax lu dul dëgg ak yàq der moom ci usman Sonko la daa di uh, fekk baax ñoom ñaaw nañ bu baax a baax uh, kàddu yi waaye kii di usman Sonko naka tey jii ñu ngi koy xaarandi fële nga xam ni moom mooy ca Ziguinchor mu nekk dëkkam. fi nga xam ni daanaka bu ñuy wax base politique moom moo Ousmane Sonko foofu rek la daal di fekk baax nekk fa seen maire nuy daal di xaaran rek ana tey jii Ah, ban accueil ah, ah, na ni daal di réserver kii di Ousmane Sonko foofu ci bërëb boobu ginnaaw bu mu daal di defee lu tollook huit mois ci li nga xam ne nag moo di ci kaso bi moom tey jii bu daal di àggee foofu nan na ni mën a teeroo kii di Ousmane Sonko est-ce que caravane bi nga xam ne bëgg na ko amal duppee ko lii di caravane nationale maanaam wër li nga xam ne nag moom moo di Sénégal durant une semaine yi des ci euh, campagne bi est-ce que loolee rek dinañ ko daal di matali 77 227 12 12 77 227 12 12 ngeen def daal di dugg ci ligne bi joxe li nga xam ne nag moo di seen kàddu euh, jëmale ko ci li la mel moom Ousmane Sonko aussi euh, ginnaaw bën ko yónnee ay émissaires pour nu waxtaanee lii di libération waaye aussi situation réew mi. waxtaanee nañu loi amnistie bi nga xam daanaka sax même bu ci d'accordul loi bi daal dinay jàll fële nga xam ni mooy ca assemblée nationale. moom Ousmane Sonko ban ko ñëwee di ko expliquer loi boobu dafa ni euh, carrément loolu euh, du si d'accord parce que li nga xam ne nag moo xew ci biir réew mi dalee ko 2021 jàpp li nga xam ne nag moo di 2024 bi il faut que rek nu daal di xam ñan ñooy responsable ci euh, li nu mel donc il faut que rek yoon daa def liggéeyam moom d'accordul benn yoon pour am ne si boobu daal jàll am na ko nekk si ligne bi daal di koy teewlu asalaamaaleykum asalaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum ah mu mel ni ah, déggante bi ah, neexul xam naa rekk ah, dina daal di duggaat léegi Euh, pour euh, joxe euh, gis-gisam ci kàddu Ousmane Sonko daal di yëkkati naka démb jëmale ko ci ki nga xam ni moom moo di Amadou Ba waaye aussi waxtaan bu ñu doon jiixi jaax diggante Ousmane Sonko ak kii di président Macky Sall moom nag jot na daal di leeral bu baax a baax. ponk yu nu fa doon waxtaanee bokk na ci li nga xam ni moo di report élection yi moom nag jàpp ni loolu d'accord ci benn yoon loi amnistie bi aussi. moom jàpp na ni rek loolu moom il faut que yoon daal di def liggéeyam maanaam képp koo xam tey jii dañ la teg loxo ci manifestation yi nu daal di siy indee li nga xam ne nag moo di moo di leeral ndax yàgg na leen ko junj si manifestation yi am na ñoo xam ni dañ leen jàpp nu ni carrément ñii ñooy toj lii di Auchan yi loolu il faut que nu indi si li nga xam ne nag moo di leeral nu jàpp ñenn ñi nu ni yéen yéen a doon tàllal li nga xam ne nag moom moo di BRT bi yéen attaque lii di bus yi donc foofu foofu il faut que yoon daal di siy def li nga xam ne nag moom moo di euh, leeral waaye aussi euh, ci manifestation yooyu bëri na ay ndaw yu daal di ñàkk seen bakkan ñenn ñi ngi wax lu toll ci 60 personnes ñenn ñi di wax 60 euh, yi moom ëpp na ba àgg ci li nga xam ne nag moom moo di 80 donc bu nu bëggee indi. benn loi boo xam ne daanaka dafay effacer lépp luy euh, firndeel mbir moomu euh, fii ci réew Sénégal vraiment loolu xel mënu ko nangu loolu rek moo tax kii di Ousmane Sonko moom euh, jàpp ni loolu rek mënul daal di mënu ko nangu fii ci réew Sénégal il faut que daal di def li nga xam ne nag moom moo di justice moom ci biir kàddoom sax mi koy xamal ni bis bu daal di jëlee lii di réew mi fayantu du am waaye justice mooy am fayantu boobu daanaka bëri na sénégalais yoo xam ni danoon jàpp ni rek kii moom. Euh, bu jëlee réew mi lépp lu président Macky la tegoon ci ndoddam da koy daal di euh, day daal di fayu maanaam euh, gis ngeen barricade 55 jour boobu daanaka loolu mënul dañ ci xel sénégalais yi ñu si bari jàpp ni loolu rek kii di président Ousmane Sonko tegu président Macky Sall tegu ko si yoon am na ko si mi daal di koy teewlu asalaamaaleykum. maaleykum salaam. asalaamaaleykum. dem na dina daal di euh, dikkaat léegi ligne bi moo xaw a saturé euh, pour nu daal di joxe seen gis-gis jëmale ko ci situation réew mi. Euh.